gannaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu mayoon nëga ni daaw ñu teew fi mu dellu ñu mayaat ren ñu teew fi di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba bu baax a baax di ñaan mu taxa Mbacké Khadim Rasoul mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko maam ju baax ja yàlla feq fanam wéral ay cëram ba mu yeggale naal yëpp ànd ko ak njabootu Serigne Touba gépp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Amin Baara yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak mboolem njabootuk Serigne Baara mbakk gépp jataay bii nag mooy ni ñu ko baaxee defe rek waxtu ne at mu ne bu nu agsee ci bis bi sëriñ Bassirou Mbacké mi nga xam ne dafa am aada waxtu nu yeggee ci bis bi mu ñëw woo njabootuk Serigne Baara Mbacké gépp kër gu nekk mu woo fa kenn ñu gunge ko mu ñëw indil addiya daayira bi nga xam ne moom lañuy wax muxaddamatul xidma ñu nekk ci liggéey boo xam ne nii moom ak i moromam ñoo fi waroon a toog di ko def bi ñu ci amee ngant daayira bi wuutal leen fi kon dafa warloo ak ñoom muy lu yell waxtu wu ne bis bi tey la séentu bu njëkk mu ànd ak ñi mu bokk sëriñ Bara Mbacké ñëw teew si loolu mooy solal bis bi kër gu nekk ci kër sëñ Baara woo na fa kenn ñi nga xam ne yàlla dogal na jàpp ñu ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ko moom gunge ko kon ci ndigalul sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ñi ngi sant bu baax a baax daayira mu xaddimatul xidma di ci jiital jëmm ju tedd ji nga xam ne moo nekk ci bopp di Serigne Afi Bousso di taxawaay taxawaay bu rafet ci jumaa ji ànd ñi nga xam ne ñoom la bokkal muqaddimatul xidma mu jëmm ju tedd ju baax joo xam ne nii xaw ma am na kër wala amul kër waaye képp ku ko soxla moom ci biir jumaa ji nga koy fekk kon mel na ne yitteem jëpp mooy liggéey bi nga xam ne da koy liggéeyal sëriñ Touba kuy ñëw ci nga koy fekk kuy dem ci nga ko ci bàyyi kon nuyoo bi nga xam ne Serigne Bassirou mi ngi koy nuyu daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy jaare ci jëm ju tedd ji Serigne Afi Bousso du ti di nuyu mbooloo mi ñëpp di leen sant ci seen taxawaay ak seen Pastef ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ aada di ko def at mu jot bu weeru koor ñëwee muy taxawaay boo xam ne benn taxawaay gënu koo am solo ci lislaam benn taxawaay gënu koo am solo ci yoonu murit kon ñoom suñ ci wuutee njabootu sëriñ Touba di leen ko defal sëriñ Basiiru dana jekk waxtu wu ne bu ñu agsee fii mu ànd ak ay bokkam ñëw sargal leen ndokkee leen ci seen taxawa ak seen liggéey jël addiya ji nga xam ne bu fi Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbakke mu nekkoon moom la koy jox waaye day mel ne addiya ji da koo jox Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbakke di ko joxal Sayxul Xadim teg ko ci lexol Muxaddamatul Xidma ci biir jataa bi ñi nga xam ne ànd nañoo ak sëriñ Basiiru Mbakke sëriñ Modou Baara Mbakke moom sëriñ Abdou Xadim Mbakke mi ngi ci sëriñ Abdou bu sëriñ Abdoul Aziz Mbacke mi ngi fi ñu gën koo xam ci sëriñ Abdourahmane sëriñ maam Cheikh Mbacke mi ngi ci ak yeneen i bokk ak yeneen i taalibe ñu gunge si sëriñ Basiru loolu rek mooy jataay bi mooy solo si kon ñi ngi dellu di sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nu mayoon ñu teew fi daaw may ñu ñu teewaat fi ren di ko ñaan yàlla nu may ñu teewaat fi diwén ak at yu baree bare ca sëriñ Basiru liggéey bi nga xam ne yàgg na ko def ñu ñaanal ko yàlla sàmm ko aar ko wéral ay cëram ba at mu jot bu ñëwee lu mu defoon da mu xeeb ko def lu ko ëpp yàlla mën na ko ko yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah mbokk yi ñu ngi amaan mbégte ak kontante ñëwaat ci bis bu tedd mag mujj bi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ñu ñëw fii ci jumaay Touba muy jumaa ju mag ji fekk si waa daayira mu xaddamatu xidma bi nga xamee ne ñoom la sëriñ Saalix Mbakke radiyallaahu anhu dénkoon jumaa ji ak xorom bi ak li lépp waaye sëriñ Alxaaji Baara yàlla ko yàlla doon leer ñëwaat feddali ko sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke yàlla ko yàlla doon leer feddali ko ba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam tey moo fi nekk tey gën fedd feddali liggéey bi nga xam ne waa daayira mu xaddama ma ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Touba fii ci jumaam ju mag ji ak li lépp ak ba ci Baqiya waaye yemuñu ci liggéey boobu nag ñu def ci innovation bu bu rëy bu am solo boo xam ne sëriñ Touba rek moo taxoon mu doon sonn mooy al ibaada wal xidma mooy ji jaamu yàlla ak liggéeyal servir doomu aadama yi euh, ñu def ñoom chaque année weeru koor bu jotee ñu fas yéenoo euh, dogal ay junni junni doomu aadama ci biir dëkk bu sell bi di Touba loolu ñu tàmbali ko at yu bare bare bari yoo xam ne yaakaar naa képp ku dëkk tubaa wala nga gis image yi yaa ngi ci teg sa bët chaque ngoon buñ dogee danañ fi joxe ay xéwal yu yaatu yaatu yoo xam ne ay jullit ay mbokki taalibe ñoo leen ci jàppale ñu koy def defin woo xam ne defin wu sell mucc ayib la muy participer ci social bi participer ci solidarité bi nga xam ne moom la yàlla waxoon ci alxuraan wa ta'awanu alal birri wa taqwa loolu mu nekk lu am solo loo xam ne seen njiit sëñ bu so mi nga xam ne moo toog nga xam ne mooy seen mooy mooy njiitul daayira Muxaddama ma moo nekk ci bopp bi ànd ceeg mboolem mbokki waa Touba yëpp nga xam daayira Muxaddama Xidma léegi léegi ñëpp ci nekk képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci dëkk bu sell bi euh, am yéene liggéey sëñ Touba ñoom ubbil nañ seen bunt nga bokk ci ci ndimbal yooyu nga xam ñu ngi koy def wala dog yooyu ñu ngi koy def nag euh, ay mbokk di ci jàppale ñoo xam ne ñooñu tamit dañoo gis ne lu baax dañ ko war a njëkkante la suñu borom wax ci alxuraan saari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu yàlla ne gaaw leen ngeen njëkkante dem wuti njëggalu suñu borom subhanahu wa taala njëggal loo xam moo a yaatu asamaan ak suuf yàlla daan ne xay leen moo wax ñi nga xam ne ñooy njëkkante lu mel noonu yàlla ne alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i yàlla ne ñay njëkkante maanaam njëggal lool nga xam moo gën a yaat asamaan ak suuf mooy ñi nga xam ne dañuy génn seen alal eh, di ko dépense ci nëbb ak ci lu feeñ ñooñu nag eh, sëñ Bassirou Mbacké Xaadim Awa mi nga xam ne tey bis mujj bii moom la ko eh, waa daayira Muxaddamatul Xidma di ko jagleel aayowoo la teg bëtam mooy mooy njëkkante leen ci njëggalu suñu borom suñu borom subhanahu wa taala njëggal loolu nag suñu borom nee na mooy ñi génn seen alal di ko joxe ñi génn seen alal di ko joxe ci yoon yàlla suma wa taala te génn jox génn sa alal ko ci yoon yàlla subhanahu wa taala am na solo lool waaye rawatina nga def ko ci bërëb boo xam ne am nañ fa yaakaar ju rëy rëy bërëb boo xam ne ka ko sanc muy Cheikh Serigne Touba si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñaan na fi ñaan goo xam ne waxoon na sunu borom subhanahu wa taala wa kullu man xaddama ne aw maala ilay farzuq hudan aw maala mu ne sunu borom képp koo xam ne jéng na da wut ma di ma liggéeyal sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla na ko may alal loolu la suñu Tuubaa wax yàlla na ko may alal ak njub kon suñ bas tamit xaadim foofu la teg bëtam ci aaya wu sunu borom subhanahu wa taala wax waaye ci hadis wax ne dee leen dépense seen seen seen alal di ko génne joxe ci yàlla subhaanahu wa taala waaye sëñ Tuubaa soññee boobu mu soññee ne képp ko daw wuti ma wala nga jéng wuti ma ngir génn sa alal liggéeyal ma yàlla yàlla na ko may ak yooyu ci teg gëtëm ba tax na mu ne mbir mi kenn du ko jiitu ay at a ngi nii macha allah tabarakallah wax dëgg yàlla ñun ñoo ko jege te mën nañu seere ci moom yëmut ci li muy dind rek di joxe ci alalu boppam waaye mi ngi xool képp ku mu gis ne eh, taalib bi sëñ Tuubaa wala nga ab nga rek te am nga yéene def lu baax dala la jéem a wommat pour indi la ci bërëb bi nga génne sa ñaq def ci ba ci mën nañu tudd ku mel ne euh, xaritam soppeem sëriñ Abdoulaye Dia euh, bu Sénico di def mu Moussa mooy euh, concours alxuraan boobu gis ngeen ren wax dëgg yàlla indi na ay ndimbal yu am solo yoo xam ne mi ngi ko jaaral ci xaritam sëñ sëñ Bassirou Mbacké Khady Awa ni ma ko waxee léegi pour mu indi ko ci jumaay sëñ Tuubaa ji ne lu waay di mën a indi rek yaakaar naa fii la gën a fii la gën a yey ndax borom da ko sañ ci ndigal suñu waaye ñaan fi ñaan goo xam ne ñëpp xam nañ nangu na ko kon lu waay di dimbalee rek nga di ko joxe pour ñu jox ko jaami yàlla yaakaar nañu ba barab yi bokk na ci barab yi ko gën a yell ba tax na kon sëñ bas euh, mi ngi sant baax a baax a baax moom day sant xëy na sax waa daayira Médinatoul Khadim ñoom dañuy jàpp ne ñoo koy sant waaye moom moo leen sant ndax ñoo ko ubbil buntu joxe ñoo ko bunt yoon woo xam ne euh, ku ca jaar rek joxe day mel ne jox nga ko directement Serigne Touba te ku jox directement Serigne Touba jox nga yentu sens jox ko àgg na Yàlla subhanahu wa ta'ala kon moom jàpp na ne yéen moo leen war a sant moo leen war a gërëm ndax li muy def nii man amila saalihan fali nafsi li muy def boppam la koy defal da koy da koy da koy njëkkante sotti ko ci misaanu xasanaat yi nga xam ne moom la yontu sens wax ne ëllëg yoomal xam ku fees di rek yaa ëppale ñëpp kon moom jàpp ne moo lay a sant baax a baax baax kon nee na mi ngi yàlla suma subhaanahu wa nga xam ne moo nekk ci bopp bi yàlla na yàlla yàggal waaye ñi nga xam ne rakkam yi mu àndal ak mbokki jullit yi mu àndal yëpp yàlla na yàlla ak doomam yi yàlla gën a taxaw gën leen dimbale ndax ñoom ay jàmbaar la daay dama la jumaay Tuubaa kese bi jàpp nañ a saytoo jumaay Tuubaa ji dëkk bi sax bu ñu leen ko joxoon bu soob yàlla des na ko defar waaye Sëñ Tuubaa mooy séddale noonu kon ba tax na sëñ Bass bi muy ñëw sëñ Afi ngi ànd ak ay mbokkam mën naa wax ne mbokki Sëñ Tuubaa yëpp la àndal da ko dara ke Cheikh Mamadou Moustapha ba Sëñ Murtala waaye la ko dala ci maam maam maam maam Mor Diarra ba ci ba ci sëñ Massamba waaye seex yi ñëpp la sëñ Bass kenn ku ne daanaka at ah bokk nga ci délégation bi te loolu lépp nag li ko li li ko waral du dara lu dul ak ak ak ak baaxam ak nooy ak tabe ak am njëriñam ndax it am njëriñ lu am solo mbokk yi mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala mi wax ci alxuraan karim sana jaam bi nga xam ne euh, amul njëriñ ba pare ba pare bari jafe-jafe woowu kallun ala mawla kooku sax yàlla su ma da koo jëpp <laughs> kallun ala mawla yàlla da koo jëpp kon suñu borom subhanahu wa taala daa bëgg nit ku am njëriñ ni euh, ko am njëriñ nag euh, da ngay amal njariñ mbokk yi amal njëriñ say mbokk amal njëriñ ñi ñu ma tuddee doomu aadama yi te loolu sax yentu sansam daana ci soññee daana wax ne euh, ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootu yàlla subhaanahu wa taala gi suñ bas noonu la mel bëggul kenn tumuranke yittey doomu aadama ci lay xëy ci lay gontu ba tax na loolu bokk na ci li nga xam ne yàlla may na ko ba ñëpp jëflante jëflante bu rafet waaye ñëpp sopp ko moo tax bi mu ñëw waa kër Sëriñ Tuubaa ñëpp la àndal macha allah kër Sëriñ Mamadou Lamine Baara ah, euh, mi ngi nii sëñ moo njëkk yëkkati kàddu gi waaye sëñ Modou Baara Abdou Karim ah, sëñ Modou Baara Abdou Abdou Kadim ma nga ne toog macha allah tabarakallah bu sëñ Abdou Aziz ah, Baara mi ngi fi toog sëñ Chouaib Mbacké bu sëñ ngi benn benn yi daan mën naa wax ne ñun ñëpp ànd waa kër Sëriñ Tuubaa boo tuddee waa kër Sëriñ Abdou Lahad Mbacké gis na sëñ sëñ sëñ Modou Sidi bu sëñ bu ab Sidi mi ngi fi toog sëñ Abdou Khoudous Mbacké bu sëñ Cheikhouna Abdoulaat mi ngi fi toog boo tuddee waa Mbusoobe nga xam ne yéen a yor waaye suñu njaboot ak ak suñu jarbaat ñoo ànd ak ñun muy sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abou Bousso Mewle ma nga ànd ak ñun ci jataay bi waaye euh, mbokk yi nga xam ne ñoom la ànd ak ñëpp macha allah tabaraka ñi ngi ànd ak ñun ànd ak ñun jataay bi ànd ak Cheikh Ahmadou sëñ ngir gunge ko ci jataay bi waaye ànd ak tamit euh, xaritam soppeem taalibeem di koo xam ne taalibu Cheikh mun Mountakha la di opérateur économique ah, di Moustapha Sow di ko xam ne dëkk bi xam nañ ko miin nañ ko ci social am ah, du Touba kese waaye fu mu nekk ca Kaolack ak fépp mën a nekk ci dëkk bi rek ñëpp miin nañ ko ci social nga xam ne day mel ne moom li muy liggéey lépp rek day fas yéene yéen delloowaat ko ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala loolu nag mu ànd ak sëñ Bass tey ñëw ci délégation bi ah, tombe ko wax dëgg ànd ci donc kon sëñ Bass nee na mi ngi koy sant baax mi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax bi nga xam ne ànd nañu ak moom kon daal sëñ sëñ Yaafe duñ guddal sëñ Bass nee na mi ngi leen sant bu di ma ko waxee léegi ndax yéen a ko yombalal aw yoon waaw nee na daayira Muxaddamatul Xidma amul seen fay ndax gis ngeen gis ngeen ne li ngeen koy defal lépp ngir ngir yéen a ko yiw la yéen jàpp ngeen lu ngeen gis rek loo xam ne xëy na xaw naa jafe jàkk ji ngeen ana Sëñ Bass loolu nee moom da sant yéen lay sant bu baax a baax a baax ndax ma euh, ku def a yiw rek euh, maanaam am nga ci aw yiw waaye ku ca jaaraat jariñoo ca yiw woowu day fekk Sëñ Bass ba mu nekk kon ba tax na nee na mi ngi leen sant bu baax waaye di wax ngeen ñaanal tamit xaritam soppeem Sëñ Abdoulaye Dia Seniko nga xam ne moom it euh, genn wàllam la muy taalibi Sëriñ Tuubaa nga xam ne xam ngeen bu baax a baax maanaam euh, ndimbal yi nga xam ne jaara na ci loxo loxoom ñëw ci Sëriñ Bass ba dugg ci biir jumaa ji nee na loolu lépp taalibi Sëriñ Tuubaa la war ko defal Sëriñ Tuubaa jumaa ji kon nee moom tam mi leen sant baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko teew at yu bare bare bari yàlla guddal seen fan yokku leen ba li ngeen bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa ci yàlla may leen ko barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëriñ Bass ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem kilifa yu baax yi nga àndal suñuy tuddee sëriñ Abdoul Aziz Ahmed mi ak sëriñ Modou Bara Abdoul ak sëriñ Maam Cheikh Sarak mi doon wax léegi ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi nga àndal ak euh, bokki taalibe yi ni ko sëriñ Maam Cheikh waxee léegi euh, sa jikko moom mel noonu moo tax wax dëgg yàlla ñëpp la xajoo moo tax moom sëriñ Bass ñëpp ñëpp la jaxasoo ci génération bu nekk nag noonu la ko yàlla bindee man mii de wax xam naa ci dara ngir nii ñuy demee moom noonu lañ demee euh, kaddu yi nga xam ne nag moom la ñuy yëkkati ubbil sëriñ Afia dañuy def benn témoignage ndax sëriñ bi ñun lay yónni ñu dox diggante moom ak moom maanaam man ak Sëriñ Abdou Lahad ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ko gën a nekk ci terrain bi waaye yitte joo xam ne euh, sëriñ Afia mi ak daayira bi am nañ ko te mu doon yitte joo xam ne ni ma la ko waxee woon doon na loo xam ne wax dëgg yàlla taux bi koy def dafay doon lu bëri loo xam ne xajul ci keesu daayira bi moom mii su duggee noppam du am jàmm mukk mukk te yitte jooju saafara wu loola mën nañ cee seere lu mujj lii di caméra yi surveillance yi nga xam ne boobaak léegi liggéey bu am solo yi nga xam ne liggéey na ko ci jumaa ji kenn xamul nu mu toll te mu mu mu wax ceeg xaritam mbokkam sëriñ Ablaye Dia ñu finance te mu doonoon yitte ju kawe kawe ni ki noonu am na yittey biir yu bëri yoo xam ne loo xam ne lu ñu war a dox la lu concerné daayira bi kemtulaay kattanam day fexe loolu saafara loolu sëriñ bi mu xam nañ ko suñu diggante ak moom ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ñëw gii mu ñëw nag euh, dogu yi fi mu ne nii ubbiku na bokk yi ci bëri ñu ngi ñëw waaye moom mii dafa bokk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ci ñi ci yàgg ñëw lañ maanaa ren ji mën nañoo wax ne ay yooni yooni yooni ñëwam la rawatina euh, ren bii mooy ñaareelu ñëwam ndax bi koor gi tëwoogul ñëw na fi indi jëfi sëñ Ablaye Dia tey jii mu ñëw ànd ak ay bokkam indi jëfi boppam te am jot noonu la koy defee kon daal loolu kàddu la yoo xam ne kàddu yi mbégte la yoo xam ne munuñ koo ñàkk seere ci moom kaddu yi nga xam ne nag mooy kàddu yi cant yi ak ñaan yi sañaaf mi nga xam ne moo mooy njiitul daayira bi di kilifa liggéey bi dañ koy bàyyee mu mu tënk kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yi cant yi ak ñaan yi euh, jëmale ko ci yow jëmale ko ci bokk yi nga xam ne ñoom nga àndal di la sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal xam naa ñun ñaan lañ gën a man ci ci di la sant ñaan lañ féetewoo yow ndax loolu rek la nga mënal waaye ñun daal rajo sama am ju baax ja lépp loo yéene yàlla nga ci teg sa loxo ni nga ko bëggee te jariñoo ko teeg ëllëg nii ko man si maam Seex waxee léegi lii day bis boo xam ne xëy na da nga ànd ak ñëpp teewee ko waaye li nga seq ak bi te nii ñëguñ ko mu ëpp doole lii fop fop waaw lii da ci lenn rek mën nañu wax ne lii mu gën a ku ku bari a la te néew ay moyen waaye lépp lu dugg sa nopp ni ko Abdoulaye waxee ak lu mu mën di doon xam nañu bu dugg sa nopp rek keroog faju na ndax doo amatoo a ju may mu faju kon nag loolu bu baax te di li ma la léegi ñaan lañ la mënal ñu la koy defal mm-hmm. ñaa ngi daal nga xam ne moom duñ ci tay guddi duñ tay bëccëg foo bëgg àgg daal yàlla na su borom àggale ndax yemoo ci sa doole bopp sa doole bopp boo boo defoon na waaye da nga cee boole képp koo xam yaakaar nga yéene ko lu baax da nga ko xaj dugal ko ci liggéey bi ku mel sa mbokk sëñ Abdoulaye Dia ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yéen nga leen jàmm yéen nga leen tawfeex ba tax li nga nekk yoon nga dox nga di leen ci xëcc ngay ñaan nga sax ci Mbacké bam soob la li nga bëgg liggéey sama am lépp ko ni nga ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal waaleykum salaam wa rahmatullah <laughs> weeru feeñ wala feeñ feeñ moom ren dinañ dina jël une semaine boo xam ne moo koy def ndogu ci suuf. yàlla ko fa jàmm rek. yàlla ko fa yàlla ko fa jàmm moom Kaolack la dëkk waaye day sama jarbaat bi sama doom bi sama rakk sama xarit bi sama taalib bi sama soppe di taalib bi sa. boobu suñu suñu suñu dund suñu dund moo ko tax